bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy topp seen seen Diawar Fada TV ñoo dikkaat ak ci ni nga ko amee ci suba léegi ci bés bi nga xam ne kuréel bu jot a barkeeloo rek ni ko sunu jëwriñ suñu seexuna mu baax mi waxee léegi ne kuréel bu jot a barkeeloo rek dina fi jaar am lu ñu laayee biir ci seen doxalinu liggéey ak seen daara ni muy doxee kon noonu lañ ko fas yéenee ànd ak sunu ñaari jëwriñ ñi nga xam ne mu ñoo fi teewal kuréel Touba ñoom ñu jox leen kàddu gi rek ñu nuyoo bisimilah xam naa dañ leen bàyyi ñu nuyoo rek ku ci nekk jaar jaaral ci turam bisimilah jëwri bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taal bi ñu leen ziar man la Baye Modou Diouf nekk jëwriñ kuréel bi ànd ak sëñ baaxum ngeen di teew ci plateau bi xam naa damay bàyyi sëñ baaxum mu nuyoo Euh, jërëjëf sëñ Baye Modou Diouf ngi lay ziar bu baax tey ziar bu baax waa Diawartouba mi nga xam ne ñoo taxawal bis bu màgg bi euh, daal ñu ci boole ñu ci am mbégte lool ndax ne ko olof di waxee rek ne ku la loo moo la yàppaloo kon ñoom leen ci sant bu baax a baax a baax ci boole googu jënd ci boole euh, comme ni ko Baye Modou waxee ndongo li ñuy wax alxaaji baaxum bokk ci kuréelu Touba Lille am mbégte lool nag ngir teewi jotaay bii ànd ko yéen euh, ngir jëmmi sëriñ bi kon ñoo ngi leen di a baax jërëjëf. ak xam naa ne ñun ñoo leen di delloo sant sax waaw ndax su sant suñ moom ku woote ku ne ku la ci wuyu si ne rek waaw ñëpp ñëpp ñëpp la war waaye ku la ci wuyu ku ne rek war nga koo santati bu baax kon dañ leen di santaat bu baax a baax a baax ci seen bi waaye ñu xam ñu bëggoon amit yéen seen gisin tey ci bés bi ngeen gisee bésu bésu tey bi nga xam ne koo teewee ndax day mel ni daaw ak at yi ci ginnaaw jotoon jotoon ngeen koo teewee bëggoon cee amat seen seen i gisin rek incha waaw ren bi ñëwee sant nañ lool ndax daaw tamit eh, teewoon nañ ko ànd ak mbokki taalibe yi waaye ren bi ñëwee tamit gis nañ ci organisation boo xamante ni macha allah jëm na kanam te sant nañ bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ni invité ngeen ko ñu ànd ak yéen ci ci liggéey bi. waaw xam naa damay bàyyi suñu baaxu mu mu wéyal na moo ma gën a jékku kàddu. <laughs> ak saa ku ju teewlu suñu baaxu. Euh, waaw ñu ngi ñu ngi santaat bu baax jëwriñ xam naa moom daa <laughs> baax nag waaw waaye eh, wax dëgg yàlla day mel ne euh, ñun ñi nga xam ne teewoon nañ daaw ci bis bi suñu borom xéewalewaat ñu ñu teewaat ko ren gis nañ ci ak yokkute bu baax yokkute ci côté bépp yokkute ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu gisin mooy dañ mën a xool di ko gis. yokkute ci wàllu yëgin mooy ñi nga xam ne xañ na boo xoolee mbokki taalibe di nga yëg ci seen kanam ne wax dëgg yàlla am na mbégte mu feeñ mu bëree bëree bëri te loolu nag doonul loo xam ne yaakaar naa euh, luy bettalee doon ndax mbirum sëriñ bi moom noonu la mas di doxee mooy saa boo ci nekkee yaay tàmbali waaye moom mooy mooy mottali mottali googu nag mooy waral saa boo tegee sa tànk fa nga ko war a teg day mel ne at mu ñëw day dàq at mi weesu loolu nag njortu nañ ko fi te bi ñu ñëwee fekk nañ ko fi moo tax it ñu ngi ciy santaat bu baax ndax day mel ne tamit ak yokkute yokkutale ci ñun ndax comme teewoon nañ fi daaw suñ borom xéewalewaat ñu ñu teewaat fi ren gis yokkute gi am ci côté bépp nag xañ na buñ limee dañuy jum waaye sur tous les plans gis nañ ne am na yokkute bu baax a baax a baax euh, day mel ne nag kon day mel ne ñun dañuy duggaale ci yokkute googu loolu nag mooy mooy mooy ci suñu suñu tawfeex ñu ngi leen ci santaat bu baax a baax a baax jërëjëf ak ça waaw mbirum sëñ mbirum sëñ bee ni demee kon ñu ñu bàyyiwaat ko xel lool noonu bu baax a baax a baax ndax day mel ni ci li ngeen jot a barkeelu tey ci bés bi jàng ngeen fi lu mel ni ne salaahi bi fadlillahi daaju sëriñ Alioune Fall ak waa kër sëñ Massamba Yazul Bouchara waaw ñaa ngi mi am solo lool lool lool lool te magee lool cosaane lool ñu bëggoon xam rek na xam ne ne loolu moom bu bu demee ci bés bi rek daa fekk wàccaay wi ci ginnaaw am na noo xam ne doxee nag doxee ngeen ko xam naa ngeen ñëw ci ci doxalin woowu noonu lu mel ni ci wàllum répétition yi ak sélection membre yi nga xam ne ñooy kuréel ak ñaata kuréel la fa am foofu noonu ca Touba waaw kuréel gi toll na ci ñaari kuréel am nañ am na ñaari kuréel am na

mais dañ koy dañ koy xaj ñaari xaj xaj bu njëkk bi nek euh, répétition pour wa kuréel 2 beneen xaj bi nek pour euh, pour wa kuréel 1 nga xamanteni ni bu accès ci daara ji rek bu ñu ba ba ba pare rek dañuy day 10h30 bu ñu rek dañuy commencé répétition bi 1 day commencé kuréel 2 day commencé de 10h30 à 14h30 kuréel 2 kuréel 1 ñëw de 14h30 à 18h30. léegi euh, pour pour ñi nga xamante ne bëgg nañu jokk ci kuréel gi euh, waa waa commission conservatoire ñooy décider mbaa xam membre bi nga xamante ne def def na test pour pour intégrer kuréel gi waa commission conservatoire ñoo ñoo ñoo ñoo koy saytu commission conservatoire bi nag mu ngi toll ci. ci juróom-ñaari juróom-ñaari élément sept sept sëñ Baaxum mii ci élément yi la bokk Mban sëriñ Mouhamed Mbodj sëriñ euh, Aliou sëriñ Moussa Faye sëriñ Fallou ak sëriñ Diassé mi nga xamante ni mooy mooy daaj ñun ñooy élément élément conservatoire chaque élément bi nga boo élément yi nga xamante ni bëgg nañoo jokk ci kuréel gi soit kum jaar ci membre conservatoire yi rek mën na un membre conservatoire bu dañ koy dañ élément de base lu ko ci ci ci ci ci soit mu def ko sur place ñu enregistré ko ko groupe conservatoire soit mu envoyé audio ñu ñu transfert ko ci groupe conservatoire C'est ko tamit bu élément décidé kuréel 1 wala kuréel 2 lay dem tamit day am suivi suivi bi mu ngi dem ci duñ ñëw rek taabal ko dañuy dañ koy jox dañ koy jox programme xool motivation ci programme bi. waaw natt ko xool mbaxam parce que léeg-léeg baat bu neex rek doyul ci jàng jàng daanaka boo xoolee li nga xamante ni ñi ñi kuréel yu mag yëpp. daanaka fi ñu toll seen seen motivation moo nekk am du baat bu neex baat bu neex kuréel yi baat bu neex kas kuréel motivation mooy mooy kuréel daanaka ci loolu la ñuy gën a nattee nag ci motivation. ndax yaa ni nga duggee foofu ndax da am loo wax sànq. Euh, maam lu ma la bëggoon laaj far nga leeral ko ndax bi nga nee dugal audio. <laughs> waaw waaw ndax xam nga yi léegi daa xorom lool. daa xorom moom kay. <laughs> moo tax mais bi nga nee suivi rek. waaw ah, loolu wax dëgg yàlla na ma xel daal. waaw day am suivi day am suivi ndax dañ daañu ko topp. ci ci ci ci ci ci ci ci motivation moom xool mba xam ci fu mu toll même tamit élément yi nga xamante ne pour kuréel 2 lañuy la ñuy dugg tamit même chose élément kuréel 1 yi dañuy ñëw dañuy appuyer élément kuréel 2 yi ba nga xam tamit dañuy mën di rootee ci kuréel 2 di yégal ndax ñu noonu lañuy ñuy def boo xoolee ren gii nii diggante euh, daaw ren waaw rootee nañ rootee nañ ci kuréel de moo tax sax ren suñu effective bi xaw a yokk par rapport ak daaw daaw bi ñu ñëwee su jumul juumul lañu woon waaye neuf lañu woon waaye ren ñëw nañ ak ak ak ak quinze euh, dix sept membres lañ mais am nañ ay absent mais ñëw nañ au moins ak euh, treize membres waaw te loolu li ñu ko may mooy forme formation bi nga xamante ne ñoo ko def ci kuréel de. léegi am membres yooyu ngeen yéegal dañuy continuer di alterner. wala dañ bu xasee ba yëg rek dañuy bàyyi kuréel 2. dañuy alterner. ah dañuy alterner waaw dañuy alterner maanaam bu ñu commencé dañuy alterner bu ñu alterner bañ gis ne même même ñi nga xamante ni sax maam li ñu dugal à l'instant tey nii ñoom dañuy alterner ba léegi ñoom ñaar ñi ñu dugal ñoom ñooy jiite kuréel nii dañuy alterner ba léegi nii. mais après nag bu ñu demee ba nga xamante ni gis nañ ne alterner bi dana diis ñoom boobaa danañ xool.

xam nga léegi-léegi moom yooyu am na solo lool. Mm-hmm. waaye am na fu muy toll mën naa mën naa am lu mu lu mu wàññi. Mm-hmm. du ma ko tuddee pas-pas ndax du jaala kii kii indi boppam kenn sexalu ko lem. waaw waaw ñëw ne day kuréel moom du jaala am na passif. Mm-hmm. waaye fi may waxee mooy. ndax kuréel moom daa nekk lu daa xaw a nekk lu lu doy waar. te it jamono ju ne ak la fay xew. ndax léeg-léeg di nga am fu muy toll nit ki. li ñu loolu loolu tubaab naan moment de faiblesse. waaw waaw dina am fu muy toll. mbiru àdduna xaw koo tënk. ba mu xaw a wane lu xaw a niróog ñàkk Pastef ci liggéey bi waaw waaw waaye xëy na ñaari liggéey la dul mën a boole ndax waaj ngeen lu mel ne mhm. maanaam mhm. bu ngeen demee ba kii kat wax dëgg yàlla solution yooyu ngeen waajal li ci mel ne mhm. alterner benn répétition kuréel 1 benn répétition kuréel 2 yooyu yëpp jàppandiwul ndax waajal ngeen lu mel ne na ko ah yow diw dañ lay bàyyi nga tànn léegi fan nga gën a yëg sa bopp nga dem fa wala boog la maanaam lan ngeen waajal daal ci yu mel noonu waaw yu mel noonu maanaam liñ ciy bañ mooy délaissé jékki-jékki rek daal di bàyyi kuréel kuréel kuréel kuréel kuréel de loolu tamit du loo xamante ni dañ ko ciy viser parce que chaque élément boo yéegal rek mu dem nga yéegal rek rootee ci kuréel de rek bàyyi bàyyi bàyyi kuréel 2 noonu surtout tax ñi nga xamante ni ay jàmbaar lañu woon ci kuréel de soo leen yóbbu yéegalee rek bàyyi leen bàyyi bàyyi leen bàyyi leen kuréel boobaa du motiver tamit waa élément kuréel 2 yi daanaka li maanaam li tënk ci li tënk liggéey bi yëpp yëpp motivation la maanaam kuréel kuréel so même ñu soxlaa élément tamit bëgg nañoo appuyer suñu école de formation bi nga xamante ne mooy kuréel de pour mën a pour mën a dëgëral yëf yi. waaw leer na nañ. waaw <laughs> leer na leer nañ macha allah jooju xam naa ne mooy boobu moom leer na man hmm. maa ngi tuddee si Moussa. mais am benn laaj bu ma amoon rek. mu jëm ci euh, xasida yi. Hmm. tànn maanaam tànn nañu xasida yi. waaw waaw maanaam nu muy demee ba xam lu ngeen di waxtaanee la wala ay proposition yu ngeen di dugal la. ak hmm. ba xam c'est périodique daal chaque année da ngeen koy defal yu waaw chaque année dañuy dañuy dañuy am programme annuel te programme annuel bi dañ koy dresser en fonction ci éléments yi proposition yi ñuy def dañuy def ñaari segg segg bu njëkk bi ci groupe bu kuréel 1 bi lay lay lañ koy chaque élément joxe proposition ñu yéggalat ko tamit seggaat ko ci groupe conservatoire non la doxale té groupe conservatoire dañ ko dañ ko dispatché ci ay ci ay groupe ci ay sous groupe comme lu ko mel lu mel ci lu mel groupe euh commission commission discipline bi nga xamante ne sëñ Baye Gueye maa maa ngi tudd dafa kaa fàtte woon sëñ Babacar bi xamna né mom dana dana ma caw ndax mo <laughs> moy mooy mooy wax ki dugg ko dul dugg ak sëñ Fallou Ndiaye <laughs> dama leen dama leen a fàtte si te sànq ñoom ñaar ñoo ko yore ak euh, Euh, commission Makaarijul Xuruuf bi nga xamante ne Serigne Bakhoum mii toog ak sëriñ Aliou ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko yore. ak euh, commission pédagogique bi nga xamante ni Serigne Mouhamed Mbodj moo nekk ci bopp bi. Mouhamed Taverny dañ koy gis Taverny. waaw moom moom day wax dëgg yàlla. la lool ci moom moo nekk ci bopp bi. Mm, sëñ Jaasi ak man daal koy épaulé. ci ci ci ci yëf waaw léegi nag ci yooyu lañuy jaar maanaam ñaari segg lañ koy def segg bu njëkk bi mooy segg bi nga xam proposition yi nga xamante ni danañ ko jëlee kuréel yéegal ko seggaat buñ soogee seggee tamit groupe conservatoire dañuy def ay ay dañuy def ay sondage yëpp lañ koy dugal sonde ko ñu xoolee yi nga xamante ni moom la pourcentage bi gën a yokk gën a du daal di du daal di du xam nga programme annuel lay doon dañ koy dressé topp ko nag ngir ci ci ci am solo la ndax maanaam day wane ne rek liggéey bi da koo fas yéenee bokk mu bañ a nekk loo xam ne maanaam ab mbooloo rek ko koy tànn. akasa ah, noonu la defee ñëpp dañ ciy maase dëppoo. waa mu doon lu waxtaanee daal. Mhm. waaw loolu lu am solo la waaw góor. Mhm. waaw loolu de leer nañ. kon muy delluwaat ci njàngale sëriñ bi rek. mais mbooloo moom moom diisoo diisoo da ciy baax. dëgg la ah. mel ni loolu loolu kese lañ ci mën a jàngat. ak ne. léppoo lépp ci soobu lay dem waaye day mel ni daa yemut ci seen daa yemut ci kuréel képp daara bi day mel ni am na yeneen projet yoo xam ne am am ngeen boo yoo leen di amal gannaaw daara yi ngeen amal dimanche bu ne ci niñ ko jotee déggee ak répétition yi kenn am na yeneen projet yoo xam ne am amal ngeen ko ci bu fekkee mën ngeen ci dikk rek euh, waaw ñu ngi amaat mbégte bu baax di sant jëwriñ ci leeral yu am solo yooyu xëy na liñ ci dolli rek ndax lépp mat na mooy lu jëm ci wàllum euh, daaj yi mu mel ni njàng mi moom bëri na bëri na ay façon ay façon yu ñu koy defee it waaye lii nga xam ne conservatoire gi moom ci lañ gën a wala euh, ñi nga xam ne sax ñooy euh, membre couleur bi yëpp ci lañ ëpp ci lañ ëpp liñ fiñ maanaam fiñ fiñ dur seen baaraam mooy li nga xam ne moom la ma ngi daan jàngee mooy jàng yi nga xam day nekk njàngum pas-pas day nekk njàng moo xam ne yow mi koy jàng da ngay xam ne yaa waaye ñi koy déglu it dañuy yëg ne yaa ngi jàng ndax euh, jàng yi bëri na waaye day mel ne li ci ëpp solo mooy li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ak ñi nga xam ne ñi ñi mu ko daan def loolu noonu lañ ko daan defee conservatoire gi nag day mel na ñoom euh, dëgg la dañuy tànn ay daaj di kenn ku ne ñu laaj la xalaatam comme ni ko jëriñ leeralee waaye nag yooyu yëpp day tënkuwaat ci biir li nga xam ne noonu la mag ñi daan doxee ak seeni jàngin ak xeet bi ñu daan jàngee ak pas-pas bi ñu ci daan boole lépp ñu jëm ko intégré ci biir kuréel gi ba nga xam ne lu jëm ci euh, maxaarijul xuruf bi dañ koy respecté di ko mm. jàng comme ni ko sëriñ bi bëggee mm. waaye tamit melokaan wi nga xam ne kuy képp kuy jàng kuréel war nga ko mel mm. ñuy exiger ñëpp nag ngir ñu mën a melokaan melokaan woo ba nga xam ne yamul ci biir kuréel gi waaye en kuréel gi tamit ku la gis dana xam ne am na foo bokk am na kuréel goo bokk kuréel goo bokk nag mooy mën na nekk kuréelu jàng waaye ku la gis dana xam ne daal am na foo yëngu foo xam ne tax na melokaan woo xam ne waroo koo mel te loolu nag day mel ne day dëppoo ak daaj yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy daaj. Euh, amaa lu jëm ci euh, yeneen projet yi mu mel ne daara ji daara la daa daaira la waaye daara la daara nag bu ñu ko waxee lépp day nekk ci biir lépp day nekk ci biir waaye li nga xam ne mooy projet bi nga xam ne nag mën naa ne mooy mooy mooy bi nga xam ne euh, le plus fondamental mooy kër Serigne Touba bi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi fekk nañ suñu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu ñu taxawal ko waaye ci njiitul Serigne Khalil Mbacké mi nga xam ne moo nekk Lille euh, di fa liggéey liggéey bu am solo lool ci dimbali nit ñi ci di leen euh, teg ci yoon waaye di dimbali taalibe yi ngir di leen fàttali sëñ bi ndax euh, ab taalibe fu mu nekk di fa gis lu bokk ci sëñ bi loolu da koy koy soññ te wax dëgg yàlla saa su ne mi ngi ci mi ngi ci kanamu mbooloo mi ànd ko ak sëriñ Amdi Mbàkke ak sëriñ Imam Bousso ak mboolem kilifa yi ñu ci àndal yëpp sëriñ Xalil moom rek moo nekkoon ki nga xam ne. moo jiite liggéeyu kër Serigne Touba googu nga xam ne li ñuy yàgg yàgg liil bi ñu ñëwee fekk nañ projet bi taxaw na bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg waaye mbokk taalibe yi ku fi jaarit def nga ca la nga war a def nekkul projet boo xam ne xañ na dañ koo teg ba pare teg ko di wuti ndimbal waaye waa waa waa liil dañ cee jiitu jiitu gi mooy kenn ku nekk li nga am mu néew wala mu bari saa su ay ay tranche lañ koy def ay tranche saa su ne am na lu ñu visé bu tayee lii la. kon lii lañ ci soxla su boobaa mbokki taalibe kenn ku nekk ñu fëgg la nga xool la nga man sa diggante ak sëriñ bi nga jaayante ko ci loolu nag ci lañ nekk ci la nekkee ba ci bu yàggul dara rek mu mel ne am na barab boo xam ne mujj nañ ko am barab ba tàmbali nañ ko liggéey ba ma ngay dox dox bu am solo mbokki taalibe yi ñu ngi koy liggéey mu mel ne sax euh, répétition yi ñuy def daan nañ ko defee feneen di wër feneen ñu defee ko fa waaye léegi mu même bu fekkee kër Serigne Touba gi pareegul waaye dimbali na kuréel gi ba nga xam ne léegi fa la ñuy amalee répétition yi loolu nag di ak yokkute goo xam ne di taw feex joo xam ne it ginnaaw bi kër gi biñ ko amee ba noppi dem nañ ba ci Serigne Mountakha di ñaan saa borom doole ko gudd fan ak wér jébbal ko caabi kër gi ba mu def ci ay ñaan mu mel ne daal day mel ne euh, lépp sotti na waaye nag waaye dara sotteeku ndax luñ luñ fa am lu mu rëy rëy am nañ yéene am lu mu day daal foofu la foofu la foofu la kër na day nekk point yoo xam ne yenn saa yi am na ci yoo day xaw a technique ba jëwri ñi nga xam ne ñoo ko yor rek ñoo ci ñoo ci ñoo ci mën a àddu waaye comme teewuñ fi li ñu ci mën rek mooy tënk ci askan li nga xam ne daal essentiel bi mooy kër Serigne moo nekkoon itte yi bépp murit ndax murit bu ne boo sañoon foo mën a nekk même bu fekkee ab néeg la rek néeg ba ñu tuddee ko néeg Serigne Touba ndax loolu day bokk ci pas-pas yi nga xam ne da koy da koy da koy da koy dolliwaat bokki daal bi rawatina nag bu kër Serigne Touba day mel ne lu waay fu waay jógee ak lu mu guddi guddi ñu ne la lii am na kër Serigne Touba loo mën a def da nga xam ne foofu ay ay ay murit ñoo nga fa day mel ni jublu bi loolu la nga xam ne Serigne Touba moom moo nekk fépp ndax yaa ahla barri yaa ahla baxri moo juuli barri baxri saxaar yi jooju moo waxoon ndax tax suñu borom defal ko defal ko tawfeex joo xam ne ba ci wallahu yansuruni wala xalku tatbaxuni fil barri wal baxri daa dafin bila barari day mel ne loolu mooy tax fépp foo xam ne ay mbindeef ñoo fay yeewoo rek day yellu turu sëñ bi di fa jub waaye turu sëñ bi di fa jibit la ci gën a yell mooy ñu am màkkaan moo xam ne dañ naan fii màkkaanum sëñ bi moom nga xam ne turu sëñ Tuubaa moo ci nekk ma Sàmba newu ci turu ma Demba newu ci bokk taalibe ñoo ko dajal liggéey ko xanaa bu fi sëñ bi nekkoon moom lañ koy jébbal ne ko lii sa yëf la waaye sëñ Muntaxa bi nga ne moo ko fi teewal ñu def ci aw turam turu bi jébbal ko caabi yi jébbal ko lépp nga xam ne sëñ Tuubaa moom fépp fu barab nekk moo fa gën a yell ndax loolu moom xañ leneen la loo xam ne <laughs> day day aw day waar bu ñu ci duggee rek bu may waaye daal euh, objectif bi daal moo doon am makkaan moo xam ne sëriñ bee koy moom bokki taalibe yi fa mën di waaye nag bépp jullit xam ne am nga yëg-yëgu def jaamu yàlla kër googu sa kër la ñu fas yéene faa di jàngale alxuraan fas yéene fa di jàngale xam-xam fas yéene fa di dundal bis yi nga xam ne day am ci yoon yi waaye bisi islam yëpp fas yéene koo ànd tamit umma islam yëpp yemul rek ci mbokki murid yi waaye da ci mbokki suñu mbokk mooy mooy mooy liggéey bi ci biir. ndeysaan ndeysaan waaw jërëjëf wax dëgg yàlla am na solo lool te it wax dëgg yàlla matale na si ni ngeen indee xëy na doxalin gi nga xam ne di ngeen ko amal ca ci liggéey bi rawatina ci wàllum kuréel gi ak sama jëriñ eh, ak liggéey yi nga xam ne yéen a ko amal ci mel ne kër suñu tuwaay nga xam ne am naa bis eh, suñu am di moomu nga doon tudd. nekk suñu wëllëre loolu wax dëgg yàlla nekk wëllëre goo xam ne wax dëgg yàlla du ko maam mu doon mu doon wëllëre goo xam du ko wëllëranteeg daara Jawartulaa am na saa su ne rek maam du ñëw ci Île de France te du jaar ci barab bi moom waaw waaw nga xam ne am na yoonam moom fi mujjee doon waxtaanee liggéey bi bisimilah moom moom sax ci éléments yi la bokk waaw <laughs> ñu koy ziar ñu koy ndax amoon nañ amoon nañ ab cant goo xam ne mu ngi woon ci kuréel gi waaye nga nga xool njaxlaf bi ñu ci àndaloon nga xam ne kii woon noonu la de ci waaw daa daa daa bokk njaboot sëñ ba pare mel noo xam ne ci liggéey boobu kéemaan nga xamante ne moom moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu yaatal lool ci këram fa lañ fa lañ commencé répétition yi ci këram moo sëñ sëriñ sëñ imam Bousso ñu leen di ay ay ay yu am yu am yu am pastel la wér na ñu leen di ziar sëñ da xam ne xëy na bu bu bu fi nekkoon ngeen gis ko waaw ndax moom moo ngi ci kuréel bi ba léegi ah, ah, waaw waaw moom kañ sëriñ la waaye <laughs> day takk ndigam toog kuréel gi ndeysaan bi fi mujjee doon doon doon wax liggéey boobu xam ne eggul woon mhm. doon wax fi ci toll nga xam ne yaataloon na ko bu baax baax ci ci ci mbokk taalibe bi mu ne woon lu am solo ba doon nettali ab taarix yu mel ne Euh, naan daal mbir mi daal daa baatin gu ci amoon ci ne borom dëkk maam euh, koo xam ne daa sonaloon sëriñ bi te dëkkee booru lin moo tax mu sàkk woon ne waaw moom faaw rek mu am bokk ci nga xam ne day duma euh, jëmm jooju nga xam dafa féete nga xam ne loolu taw feex la koo a ne li ñu wax lu yàgg-yàgg dañuy dañuy doog a door nag moo tax waaye lu yàgg-yàgg danañ dem ba xam ne ñaar ñaari mbir daje na na maanaam kër yëpp kër Sëñ Tuubaa yëpp baax na waaye kër Sëñ Tuubaa lii moom day loo xam ne a jàpp la ko waxee ndax lii ah, la ko waxee maanaam challenge la daal ko a waxee ndax ñi nga xam ne eh, ci ñu bokk ci gënoon a sonal sëñ bi dañoo nekkoon lii dañu wala dañoo dëkkoon lii wér na léegi nag sëñ bi bu demee ba ñoo ñooñu fañ dëkkoon ci seen réew yooyu waxuma la moom ñu bëggoon koo génne am réew mi nga xam ne fa la juddoo ndeysaan fa la màggee fa la defee lépp lu mu war a def ñu bëggoon koo génne ci réew moom sàng bi waaye sëriñ boobu dox ba am ci seen dëkk màkkaan moo xam ne doomi dëkk ba amuñ màkkaan mu toll noonu loolu kéemaan la taw feex la yoo xam ne murit bu ne ak foo mën a nekk da cee war a jàpp xam ne liggéeyal Sëñ Tuubaa la. kër Sëñ Tuubaa ga amul tubaab bu am kër gu bi néew. non loolu moom loolu moom kenn xamul loolu nag kon. cant la tuuti tuuti. boo ñu xam ne sot dëgg yàlla santaan nañ bu baax ci leeral yi am na solo lool xam naa ne dañuy laata ñu jox sëñ Moussa mu daal di tëj rek jotaay bi ndax ak ngeen di tàggatoo ak mbokk taalibe yi dañu fàttaliwaat ne rek liggéey woowu mi ngi dox ba léegi waaw ndax maanaam jënd kër moom mën nañ ko woowee njaalbeen la ci projet bu mel noonu après am na entretien ak yi ci wareem yëpp xam naa ne euh, ñàkkul balaa ngeen dem di ngeen ko leeral incha allah dañuy bàyyi si Moussa rek mu daal di tëj waaye santaat nañ bu baax ci seen teewaay waaye ci ni ngeen ñu leeralaatee liggéey bi waaw dëgg yàlla am na solo lool am na solo lool santaat nañ bisimilah sëñ Moussa kon xam naa dañ leen di bàyyi rek ñoom ñu të ñu tënkaatal ñu ci ci gàttal maanaam fi ñuy répété ak ñi daara daara ji tëddee rek bisu répétition yeeg bisu daa daara ji euh, waaw loolu xam naa jëwriñ tënkoon na ko léegi sax waaye xam naa en résumé rek ñu wax ne daara ji moom euh, mi ngi lil mi ngi lil fa lay doxee fa la mas di doxee suñu bàyyi Modou Diouf mii mooy jëwriñ ji waaye moom it am pëstef boo xam ne day mel ne fu daara ji àgg tey rek ginnaaw yàlla moom moo ko fa àggale kenn ku ne ci ñun da am jamono yoo xam ne di nga dox ba sa dox fa kastalu nekk ci leneen waaye heure boo ñëwee fekkaat ko te it du maanaam eh, du ma ko du ma ko du ma ko du ma ko comparé waaye li Serigne Saliou waxoon ne bu ma doxee ba gisuma leen damay dëppaat waaye yàlla xam na ne noonu lay doxee maanaam heure bu demee heure bu yëgee ne daara ji am na ci ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi am as eh, nu ñu koy waxee di am ci ci doxin ci ni ñu war a doxee doxi wu dana jël téléphone am woo la dana la soññ dana def bépp effort ba nga dikkaat da koy jee yenn saa sax day dem ba tool foofu da nga naan kii xanaa yëf moom dañ ko ciy fay wala waaw waaye nag xam ne daa xam lañ ko ciy fayee loolu la loolu ñu ko ci santaat bu baax di ko seedeel mbokki taalibe yëpp wax dëgg yàlla am na ci apport bu am solo noonu noonu lañ ko mën a tuddee ci mbokki taalibe yëpp waaye comme moom moo jëriñ bi suñ ko tuddee day mën a tudd nañ ñëpp li ci des muy wàllu bokkin gi nag képp ku ci bëgg bokk daara ji ubbil na la buntam ak niveau boo mën a am. munoo am niveau bu kawe ba daara ji maanaam euh, ëpp la boppam. sa niveau it mënut a suufe ba daara ji yées na la boppam. niveau boo mën a am boo ñëwee da nga fekk ñoo xam ne mën nañoo ànd ak yow ci liggéey boobu. Ah, kon ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp ngeen xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ah, ñu ngi ci fas yéenee dox di ci fas yéenee nag sàkku rek maanaam ngërëmal sëriñ bi <laughs> lañ ci lañ ci lañ ci ci yéene di ci ñaan nag lépp loo xam ne daal béyatu. xasida la nga xam ne yëkkati woon ci bis bi ak mboolem ñu ko fi yëkkati yàlla ko sëriñ bi nangu te bu ko nangoo mu def ko ay xéewal yu rëy a rëy bu ko defee xéewal mu làqal ñu ko koo xam ne yàlla bu ko yàq àgg te bu ëllëgee mu nekk loo xam ne moo ñuy daal di def suñu Moussa mu daal wax daa lépp ci moom laa koy gis ak élément yëpp daa baax rek di di dama dama ci dara. ndax man kase mënumaa doxal dara. wér na bu baax baax a am nañu mbégte ah, jërëjëf bisimilah. jërëjëf jërëjëf di jaajëfalaat bu baax a baax sunu ñaaw ñaari jëwriñ yi teewal fi daayira Touba Lille yéen jëfal bu baax di jëfal tamit yéen ñi dañu topp ci seen seen Diawartoulah TV nga xam ne mooy seen daanaka ci diaspora bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu diine rek ak yoonu Cheikhul Khadim bi yoonu Mouridia moom moo ko fi moo ko fi amal moo ko fi amal kon lu ci waay bëggati rek mën na mën na ko cee toppati ak di leen jaajëfalaat bu baax a baax jërë ngeen jëf billahi aminu